foofu laay commencé sax ci li ñu boole fii. te muy ñu ñëw sottante xalaat kenn ku nekk def analyse am ci li xew. je crois ñëwuñu fi pour contre kenn ñëwuñu fi pour xuloo kenn. moo tax affaire identité bi euh, Penda man xam nga lu tax duma ci mën d'accord ak yow man chef de parti laa yor récépissé nekk tukkuleer kon kay waroon naa dem nekk candidat ndax tukkuleer yi votel ma ma gañe mm. mais malheureusement tukkuleer yi rek. bu fekkoon ne ñoo votel Macky Sall du gagné. waaw xam nga Zara xaaral rek ma ñëw wax dama lay expliquer xam nga bu ñuy analyser ñun. waaw non bu penn bu ko dog jëlal note rek. man je préfère parce que xam nga lii tamit mooy indi. jël na sama temps de parole jël na sama temps de parole. donc Macky Sall du tukuleur du séeréer du njaago du manjaak du ñooñu ñëpp sénégalais yi ñoo ko voteel pour ñun amul kii tukuleur la kii pulaar la kii mm-hmm. séeréer la. sénégalais yi Macky Sall dafa ñëw présenter leen programme ñu gis seen bopp ci programmem gis seen bopp ci valeur yi mu incarné constance bi mu incarné dal bi mu incarné ak yaakaar bi mu incarné moo tax tey bu fekkee ne xam nga moom moo ma gën a xam Macky bu fekkee ne tey dafa ne gàcce gàllaama Ablaye Wade jàngal na yëpp Macky Sall kon xam nga Macky Sall dina gagné deuxième tour ndax yéen nee ngeen vous êtes leer rois <laughs> yéen a gën a aay n'est-ce pas kon l'élève xam nga toujours l'élève dépasse le maître kon nag vous avez de sérieux problèmes il faut essayer ngeen jéem a wut yeneen argument parce que ñun en tant que femme on doit donner le bon exemple te man tey militant wu PDS yi laay waxal parce que nekk militant parti warul tax nga xool intéret askan wi nekk militant parti warul xool warul tax nga bañ a xool lan mooy sa njëriñu doom te tey actuellement suñu njëriñu doom suñu njëriñu njaboot mooy ñu seet jafe-jafe yi nuñ ciy génnee. xam nga bu ñu ñëwee tey nañu Barthélémy Diaz du exemple man du ma wax ci beneen côté mais damay wax ne Barthélémy Diaz dafa incarner institution Barthélémy Diaz est maire. kon bu fekkee ne tey dañu ñëw di attaquer institution y a un problème man foofu laay waxee et loolu suñu gouvernants yi ñoo ci am part de responsabilité ñoom ñoo fragiliser les institutions ñoom ñoo indi euh, lu tax askan wi kenn ku nekk foog ne bu buñ ko tooñee mooy fajal boppam kon ñoom peuple bi daf leen war a sanctionner parce que peuple bi bi mu leen di jox seeni baat da doon xaar ci ñoom ñu sàmm ko aar ko mais xaarul woon ci ñoom ñu koy mbubal xaarul woon ci ñoom ñu jël force de défense de sécurité yi nga xam ne ñoo leen di fay seen xaalis ñu braquer leen contre ñoom kon fitna buñ koy wax encore une fois man exemple bi may jël mooy manifestation yëpp M23 toujours été un pacifique manifestation yi ñu télé bi won yëpp ña doon dox seen loxo yaa seen ginnaaw bopp yoruñu ngànnaay kon fitna bi fan la jógee bu ñu wax tey waxu fitna li ñuy wax tey mooy gaz bu cher bi nu ñuy def pour mu dañ li ñuy wax tey mooy dund gu gi jàng bi loolu yëpp li koy dindi mooy deuxième tour dafa am na askan wi yëpp mobiliser bu ñu xoqatal kenn képp koo xam ne yaakaaroon nga ne euh, du ma génn ndax mën nañ ma fitnaal na nga génn mhm. ku ñu jox xaalis bu jël te ñu ngi ñu wax biir wetu géejawaay ne ils sont en de faire des duplicata sur la base des listes liste yi nga xam ne dañu ci doon émarger bi ñuy voté dañuy ñëw xool ku émarger wul ñu defal la duplicata joxe ko pour voté ji kon damay ñaan askan bi keroog le 25 mars 7 heures du matin nañu taxawee woon le 26 ñun ñëpp nañu teel a dem taxaw parce que lii buñ ko fajul